yóbbal ci àdduna boo xam ne dina leen jariñ ci dunduk àdduna ak dunduk ku ne xam na ne àdduna ab tukki la waaye tukki bu gàtt la ku la defaral sag ndaw nag mooy ki xiirtal ci nga wut lu baax te di ko sàkku te di ko jëfe neexut nag ci ndaw ndax ndaw li neex ci moom mooy topp bakkanam topp bakkan mooy yendu fu la neex fanaan ci lu la neex dund ci lu la neex loolu la bakkan bëgg waaye jubóowut ak li yàlla bëgg ci nit ki ndax jëmmu doomu aadama dafa séddalikoo lu bari doomu aadama dafa am jëmm ju taxaw xam ne mooy assaat ak jusmaan yi am luy doxal jëmm ji loo xam ne moo koy commandé ci lépp ñu di ko tuddee ar ruux nga xam ne moo ko may liñ tuddee sifatul xayaa moo ko may melow dund dund melow la ci nit ki bakkan nag ñëw moom dox diggante moom moom yi ak cër yi mooy li nga xam ne moo la mu bu fekkee ruu jógee na ci al malakut al ilahiya suuf jóge ci as sufliya kii di al uluwiyaat kii bokk ci sufliyaat yi ñoom ñaar dañuy déggoo di ko secret bi leen boole ñoom ñaar loolu moo tudd an nafs moo branche la diggante ruux bi ak yaram wi yaram wi am lu mu bëgg muy lekk naan toog noppalu sëy def lu la neex duma nit xas nit xuloog nit yàccaaral bëgg lu neex bëgg lu yomb bëgg nangam loolu mooy melooy bàkkan loolu mooy melooy bakkan loolu lañ tuddee ak nafs moo tax ngeen dégg ñuy wax nafsul an nafs al ammaara bisu xam ne bakkan boo xam ne soo soo jógee bëgg a def dara am luy taxaw coo naan yow koy demal defal lii rek kii du sa moroom loolu nafs la léeg-léeg tamit nga dem ba yàgg lool souvent naan la ah yow mii de soo ko defee dinañ la dégg de soo ko defee de mën naa am naa nga génnaat ci loolu mooy mulhima nga xam ne kon am na beneen booy dem ba mu yàgg lool mu weesu loolu yépp nga xam ne léegi ak nga al mutmainna mooy an nafsul mutmainna moo tax rabbaani yoone yi nga xam ne ñu mel ni boroom kër gi di seex na ahmadul xadim di assamadaani di xutbu rabbaani yi nga xam ne waxuma la waxuma la xam-xam waxuma la am cër ci yàlla waaye waxuma la ay may waaye li nga xam ne moo gën a jege nga xam ne soo ko xoolee gis ko te mooy te mooy soo ko xoolee gis ko soo ko seetloo it sam xel rek gis ko mooy fexe ba doomu adama defaru fexe ba defar def doomu aadama defaru loolu daa bokk ci yóbbalam yi nga xam ne daf nu koo fàggul daf nu ko fàggul liñ tuddee ne kum bokkat àdduna lim la rawee mooy pàggatéef pàggatéef mooy soo demoon tey bëgg a tukki li ngay soxla ci tukki bi parce que di nga soxla nga am billet dinañ la okkeel billet bi di nga xam heure bi di nga xam vol bi sooy def transit di nga ko xam di nga am hôtel noonu la sëñ Tuubaa def ak nit liñ tuddee nit ci doomu aadama nit ki nekk ci àdduna mooy dafa xam nit ki mu doon wujudul insaan alal ard mooy nit ki nekk ci kaw suuf la xam mu tàmbali ak nit kooku ci ndawam su ngeen xoolee rek lim leen jox meilleur cadeau bokk na ci tasawudu sixaar tasawudu subaan kenn demandewu ko mais dafa xam ne dafa jaar ci ci ci ci ci lu bari xam lu bari mu jël loolu nag farale ko tuddee ko yéen ndaw ñi kon loolu cër la bu rëy liñ naan man gis naa sama bopp ci sëriñ bi wala gisuma sama bopp ci sëriñ bi loolu rek war na tax ndaw bu nekk su dëkkee biir Sénégal même bu dëkkul biir Sénégal mais bu fekkee dafay eh, di gëstu xam-xam ci wet gi nga xam ne yéen moom ngeen di gëstu mooy wut xam-xam nga dégg ñu ne ah am na koo xam ne sëriñ boo xam dafa jël téere tuddee ko ndaw nga ne ah mais sëriñ boobu lan moo tax mu jël téere tuddee ko ndaw te man ma nekk ndaw kon moom am na lum la lum la bàyyil xel bàyyil na la xel waaye yow tamit nag lan nga war sa diggante ak kooku kon lan la war sa diggante ak kooku bi mu la defalee téere boobu defal la ci tënkal la ko yetti njariñ mu ne la yàlla moo la moom te daa bëgg nga wax nga nga wax yàlla ne ko keneen amul cër ci man ku yow yow sunu borom loolu mooy tawxid tawxid weesuwut loolu yàlla moo la moom te kenn amul cër ci moom ku moom kenn amul cër ci yow ku moom yàlla beneen bi ci des mooy mu ne la ki la xamal loolu yépp mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mu tudd xaadimu rasul nga ne nu mu tuddoon ñu ne la muhammad la tuddoon moom turam ba sëñ Abdulaay daana wax ne moo sàll sax daanañ ko wax ndax Seex Ahmadu bàmba sàll lañ ko tuddee mu tudd muhammad rasulullah waaye tur wi ko ñu bari xamee mooy xaadimu rasul xaadimu rasul gembe ñaari yëf muy métier mi métier bi nga xam ne moom moom la jëloon muy muy muy muy muy muy ak jagleem li ñu tuddee spécialiste bi nga xam ne moom la moom la tànnoon moom mooy métier tagg si yonent yàlla muhammad salaa salaam du tagg muhammad muy liggéeyal yàlla jaare ko ci li ko yàlla sant ndax daf ne yaqulu lisaanul xaali lii kun xadiima man xamaaka ak akdaari bi laa sara nee na yàlla moom wax ne ma ci làmmiñu xaal lisaanul xaal mooy lan lisaanul xaal mooy lan mooy bu mën a dem ba yàlla mën a waxante ak moom te jaarul ci ni muy def yónent parce que bu ko jaaree ci moom yónent lay doon yàlla day waxante ak moom waaye bu waxanteek moom ni muy waxanteek yónent yónent lay doon moo tax suñ bokki naar yi bokk na ci yiñ ko daan tagg dañ ko daan wax ne suñ fekkutoon yàlla wax ne maa kaana muhammadun aba aba ahad min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatima nabiyina kon ñu ne la yow yonent nga ndax amul lenn la wutee ak yonent Sëñ Tuubaa parce que boo ko nattoo ci ci jëf yi jëf yi yonent la jëf yi du jëf yi jëfi nit du jëfi nit ku simple laa bëgg wax jëfi nit la mais li tax nga xam ne dafa kéemaani mooy doomu aadama bu mën a jëf lim jëf léegi rek ci gan ñi ma àndat nga xam ne am na benn xale boo xam ne Australie la la nekk fa la juddoo mais bi mu duggee ba ñu wan ko ba ba ba wan ko ba ñu wan ko ne ko ne ko ne ko ne ko kii ne ko sëriñ bi de lii da ko bind tagg ci Seydina Muhammad sallallahu dafa jàpp ci gémmiñ gi xale la de jàpp ci gémmiñ mu ne man benn téere sax mënuma ko bind kon bokk na ci kéemtaan yi nga xam ne yàlla def na ko jaaree ko ci moom nga xam ne loolu boo ko xoolee gis ko kon mu woo defar doomu aadama pàcc bi ngeen nekk yéen muy médecine ngeen dikk fekk mu jël ci benn téere tuddee ko mat la bu shifa soo demee tamit ci yeneen xasida yi nga xam ne mag ñi daan nañ ko wax gone njaareem ci xasida yu dog yi ñeen di ko ci wax mooy yi mu tënk nga xam ne tënk yu gàtt gàttaan yooyu miin ngeen ko di ko jàng ci ci ci ci ci ci ci ci jataay yi allahu xayru man shafa wa man hada wa kashafa wa minhu jaani shafa min kulli daa muqaddar day taalif xasida boobu ba àgg ci bayit boobu sidna jibril ne cëpp wàcc ne ko sa boroom nee na fii nga toll fu nit toll ci tawat soo ko jàngee tafli ko ko te du diggam sunu borom yëkkati ko loolu loolu loolu boo ko dee natt ci am xel day jéggi am xel waaye day day doon nit day xam ne leneen ci kaw suuf lépp ci sunu borom la ndax yaakaar naa ne am na ñenn ci yéen ñoo xam ne dinañ jàng lan mooy waral tawat wala deret bokk soo ko jàngee da ngay gis ne dañ naan la dafa am ñaar dafa am yuy xeex yuy dugal am yuy génne yéen ci seen xam-xam laa koy déggee dangeen di wax ne tamit antibiotique rek maanaam loo xam ne day day day rey lii liy lekk yax cër bi luy lekk cër dafay dund xam-xama àggagut ci xam dëgg-dëgg ne mi ngi koy bés bu set nag bu ñu demee ba trouvé benn ñu ne lii kat tawat bii kat lii moo ko waral mais jeexul parce que ab ab ab ngi ñaan yàlla ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñi ñiy gëstu ba dem ba ba ba teg ci xam lu leer nàññ ci ne tawat jii de lii a koy waral lii koy saafara yàlla na ngeen ci am yu bari ndax recherche rek la su ngeen def seeni recherche bu yàggee yàlla mën na leen ca may li ngeen bëgg su ko defee nag kon li ñu boole nag ak sëñ Tuubaa mooy moom dafa ne lakin unaadi kullal ibaadi ila ibaadi bila jalaay maa ngi woor ñépp na ñëw soo doon xool danga naan mais ku woo ñëpp bu ñëwee lan nga leen di dooyee lan nga leen di dooyee nit ni mu lakkale lu ñu lekk lu ñu naan fu ñu tëdd mooy li nga xam ne moo gën a jaaxal àdduna bi ci fi jamono toll mooy Touba lan moo koy dundal mbooloo mu bari mii amuñu métier amuñ dal loolu nag mënoo ko xam loolu mooy barke loolu mooy loolu lañ tuddee al barakatu mooy barke moom nag bi mu dikkee dafa bokk ci lim ñaanal yàlla su nga demee ci xasid ak saan euh, xasid ak limaahin basirin nee na bi may liggéey sama liggéey bi dama cee ñaanaale yàlla ne ko ñi may topp buñ dee bu leen xiif buñ dee mukk ku ñëw ñu ñu ñii lu leen rey ñu ne xiifa leen rey neen du ngeen ko dégg mukk su ngeen xoolee tey ci màggal yi danga naan waaw mais taalibe fi ñu jëlee li ñuy def ci màggal yi barki dem bésu xasida bi barki dem bésu sikkar bi ginnaaw suba bésu yëmtu xaadir ginnaaw wet suba bésu nàngam xéewal daa bokk ci li yàlla santaane ne nañuy togg ay ñam di ko joxe ngir jëmmi yàlla loolu ak jaamu yàlla la falaqtamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it itaamun fi yawmin si masxaba kon jaamu yàlla googu ñi ngi koy def te yëguñ ne ñi ngi koy def ndax dañ koy liggéeyal sëñ Tuubaa beneen bi ci des mooy la mooy sooy nuyoo daal jël dara teg ko ci loxol kilifa gi ngay def mu nekk hadiya sa diggante ak moom hadiya alali yàlla la yàlla jaam bi dafa am lu mu ko war loo jox ku defar suuf mooy réew mu mel nii suuf si laa bëgg a wax réew mu mel nii koo defar ba mu def fi ay garab système ventilation bi mu fi def muy ngelaw li doo xanaa war nga cee fay dara ñun ñi ku ci ku ci nekk sa kër boo ko defaree defar sa ventilateur defar sa étage faw ngay fay léegi nag sunu borom defal ñu loolu yépp amul ñu ci fay kon nag lim ne nu jaamu leen ma kon mooy cëram te jaamu googu du fay ko de ndax su bëggoon su fekkoon jaamu gi am na lu mu koy jariñ ñi ëpp ci àdduna dañuy nekk ay jullit léegi ñoom ñi ngi may wax ni seen dëkk. soo fa reyee nag dañ lay rend yow dañ lay rey yow nit parce que ñoom dañuy dañuy jàmm nee na fi ñuy fi ñuy jàmmoo dañ koo defar ba mu rafet bu fa kañe duggee kañe daa bokk ci li ñuy jàmm ba fa kañe dikkee ñu sujjóotal kañe bi def ñuy def nii léegi mën naan ko kon kay mënoon nañu dem ci àll bi rek bañ a tabax ay jaamu place jaamukaay yàlla moom ko wax léegi kon mu daan ne diine rek ndeke mooy dëgg kon diine dafa noppal day noppal nit ki njub dafa noppal nit kii nag bi mu nekkee fii feeñ ci jamono yor der bu ñuul te booba mënoon naa yor der bu weex feeñ feneen ndax yàlla bi muy bi muy bi muy bëgg jamono nit ñi liggéey ci yonent yi xam nga fi nga koy xamee mooy lan kenn ku nekk daf la wutal xeet wutal la dëkk mooy lan déglul alxuraan li kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi mooy dañu sélectionné ci biir ay nit te yow bi nga juddoo sa papa ak sa yaay rek moo la jur xam nga lan la jublu wax ci alamul arwaax mooy fi yàlla bindee woon ruu yépp dajale leen di séddale nag ñii ñooy niti Seydina Moussa ñii ñooy niti Seydina Muhammad ñii ñooy niti diw ñii ñooy niti diw sëñ Tuubaa wax na sëñ ma bàññu Njaay ne ko xam nga li tax ngeen mel seen melokaan yii xam nga lu ko may mu ne ko déedéet mu ne ko ci yow mu ma su keroog ba may tànn sama njaboot gi ci biir tànnuk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kooku ko mën a fay kenn mënu ko fay léegi nag soo dikkee jamono mu ne la nag dama bëgg nga jàmm yàlla nga jub nga baax nga wattandiku seytaane wattandiku bakkan di defaree loolu mooy defar nit loolu nag laa leen waxoon ci njëlbeen ne ko li ko ne li ko ci yàlla may kiimtaan la moo ko indi ci dëkk bii di Touba fii ngeen nekk tey euh, danañ ci wax tuuti mu wax moom ne faada muridun lam yamal la min nii bi maa bi yaxoosu xayra man nii murid bu yàlla dimbale murid mooy ku bëgg yàlla kuy wut yàlla ba yàlla teg la samay loxo la nga bëggoon am nga ko faada muridun xaadahu llahu ila taalluxin wax bu baax mu ne yàlla kum womat ba teg la ci sama loxo la nga bëggoon am nga ko moo ko waxal boppam daani faata muridun laa sa bii bi maa yëfoox murit bi yàlla womat ba teg ko sama loxo mu wéeru ci man maasanahu billaahi jaar yi rafiq kooku am na li mu bëgg waa koo xam ne da ngay wut yàlla gis ko ne la man dëkkandoo yàlla laa kooku jeex na kon yow la ngay war ci sa coono jeex na kon sëñ tubaa day noppal nit maanaam sëñ tubaa day noppal nit raccourci la la ngay sonni di jaar fa gudd mu indi la foo xam ne boo fa jaaree rek ak àgg suñu borom noonu la def mu daal ne kullu muridin bi yeloo fi yasaadu daan ne bépp murit boo xam ne yàlla dimbali na ko ba mu aju ci man sunu borom dana ko dox digganteem ak lépp loo xam ne lu koy lor la waaye nag ban kan mooy morit bi mu ne fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal nit balaa mën a àgg ci yàlla day fekk ku àgg ci yàlla mu jàpp ci moom mu àggale ko ci yàlla waaye ku àggut ci yàlla boo àggee jàpp ci moom du la yóbbu ci yàlla wa kullu man lam yata'addab sabana ala yaday cheikhin fa yalqaa mihana kan mooy murit kon mu ni la képp ku fekkut waa ju baax ju tàggoo ak ayi bi bakkan am ak defaru nga ànd ak moom mu di la jubbanti di la digal di la tere na nga seede na sa dund gépp coono nga ci am te bu ëllëgatee mën naa bañ a baax li am na man adima cheikhan mursida fa sayxoo cheytaan hay su xasada ndax nee na nit bu ñàkkee ko ko jàpp womat yóbbu seytaan day ñëw jàpp ca kuliyam di yóbbu képp mu daan kon nag su la su la yàlla dimbalee ba nga dem ci sëriñ mu ne la fa sayxu sëriñ ba nag laa yuxaaliful musafaa sëriñ ban mu ne la sëriñ du du du wuute ak sariatu sayyidna muhammad mii ràmmoo bu ëllëgatee al mooy ku ñu ràmmuloo ko daan ne faman naxa amral murabbiin képp koo xam ne ka lay dox digganteeg sa borom topp nga ndigalam fa nga jëm danga fa àgg daal ne fa xaysuma amarakal murabbi fam tasilil am tasil li bi contrat ba nag mooy kelay womat ki dox sa diggante ak sa borom ndigal yam lay joxe lam lay jox loolu mooy contrat bi fekk yaa ngi nangu ndigal la yaa ngi remplir contrat ba soo demee ba nangutuloo ndigal la jàppal ne rompi nañ contrat amatuloo leen lu dox sa diggante ak moom kon nañ leen góor góorlu ci ndigal yooyu Sëñ Tuubaa loolu la wax kon moom wax na jàngale na murit bi kan mooy murit bi sens bi mu am waaye nag naka la murit bi di àgg suñu borom faxe suma nahaaka an say in fala tamit lahu wa an ridan la taxlu fula kon nag lépp loo xam ne lii dala ko dala ko tere bul ko def te bul bul ca sàggan ko kon loolu ab yóbbal la yàlla ni yàlla gën a jàppale bu baax ba ngeen dema dema dem ba liñ bëgg ci réew mi nu am ko ci yéen ndax yaakaar la ndax nit ñaa ngi tawat di jël ay avion di dem bitim réew di faju ji te loolu lépp xel rek a koy def kon nag ay ndaw ngeen te yàlla dogal na tàbbi ngeen ci loxo yi Sëñ Tuubaa te day fóot loxo yi ndaw day fóot bakkanub nit ki ndax te bu ko te buñ ko fóotee xad aflaha man zakkaaha wa xad xaaba man dassaaha kon yàlla na yàlla booleek sëriñ bi ñu dégg ay message am xam ab jublukaayam euh, di ziar sunu sunu mag ju baax ji nga xam ne moom la ñu fekk fii di di sëriñ Moustapha Diatara léegi léegi rek lay wax ne moom de man nu ma mel moom ñii maa maa leen yar bi ñuy xale dama leen daan teg sama kaw di leen pinir sama néeg tamit ba ñuy nelaw maa leen yar baayam bi ma bëggee jàng daf ne ma jógeel fi nga nekk ñëw fii kuy jàng da ngay dem fa fa ña nga xam ne fa fa jàng ña nga xam ne ñoom jàng solo wal nañ ko jox nañ ko solo waaye soo nekkee foo xam ne ñoom joxuñ euh, jàng gëdd mooy solo su boobaa da ngay bàyyi jàng ma nekk kër baayam woy juróom moom mii wu jigéen daf ma daan wax ne ma lu rafet la ndax lu ñu war a mën a seere la daf ma daan wax ne ma su koor masaan jot daf ma daan wax ne ma bu ma la defaral li ngay xaddee nga di ko denc donte man duma xadd waaye fu heure bu neexee rek fëgg ma am benn bés ma fëgg ko mu meccetu wala ma fëgg ko mu bin binal nit ki nag loolu bokk na kon yóbbalu jigéen euh, ak it kilifteef daanam wax ne ma lii ma lay digal nga di ko jëfee di la ko tere nga di ko bàyyi soo demee diir bu gàtt danga nga gis lu mu lay jariñ kon sëriñ Moustapha ñu ngi koy ñaan yàlla sunu borom gën a guddal fanam gën ko wéral wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yal na fi yàlla yàggal sëriñ Muntaxa Basiir liggéeyam naal yëpp yal na ko sunu borom yàggal am ngeen sas am ngeen ay université université yaa ngi ni gàññi te yoonu murit a koy def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah suñ xaar macha allah ci leeral yi ak ci soññe bi wax dëgg yàlla am ngeen tawféex goo xamante ni yàlla wax dëgg yàlla man xamuñu moom sax ngeen ñëw tey léegi la ma ko sëñ bi wax rek yàlla dogal ngeen dajeek moom kon li mu fi soññe yëpp dégg nañ ko kon ñun incha allah danañ ñëw ci kàdd yi leeral bibliothèque bi ak it euh, njëriñ li ak li fi nekk ñu jox suñu jëwriñ bu soobee euh, mu ñu leeral ay kàddu ko defee mu ñëw euh, tëj kàddu gi bu soobee yàlla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziyaara bu baax di ziyaara kilifa yi nga xamante ni ñoo yor barab bi di daari kaamil ñu teew ci barab bi di salle de lecture et de recherche loolu nag buñ ko waxee day sox soxal mbooloo mi nga xamante ni ñoo teew fii tey di mbooloom Touba assistance médicale di daayira bi nga xamante ni moo dajale mbooleem ñuy yëngatu ci wàllu faj moo xam ay médecin lan moo xam ay pharmacien lan moo xam ay chirurgien dentiste lan moo xam ay vétérinaire lan moo xam ci corps paramédicaux yi na nekk moo xam tamit dañuy liggéeyal sëriñ bi ci dimbali ko bëgg a dimbalinte yoon wi ci wàllum faj daara ji fi teew nag teew ci bërëb bi tey daara ji sosoo woon la ci jamonoy Serigne Saalihu Mbàkke ci 2001 ginnaaw bi nga xamante ne ay mbokki taalibe yi ñoo demoon xel koom doon fa liggéeyal sëriñ bi ci wàllum faj ci xool dongo yi ñooñu ban fa jóge ci nan yegsi ci sëriñ bi ngir sàkku ndigal ci moom ngir taxaw daayira ci la leen sëriñ bi jox ndigal ni leen kat lii ngeen nekk ci liggéey bi boo leen ci nekkee rek suñu borom na di defal ngërëmu sëriñ bi te loolu ci ñaan yàlla na ko dajeek moom kon li teew fii ci mbooloo mi xëy na menn pàcc la ci mbooloo mi ñu jóge ci gox yi fasantikoo ndax am na cellule bu jóge dakaar am cellule bu jóge Thiès am cellule bu jóge Ziguinchor am cellule Touba bi fi nekk ak yeneen gox goxaan yi ñoom ñëpp nag tey ñu daje fii ngir ziyaar gannaaw ba nga xamante ne ñoo ngi amal ci waxtu wi ma may wax ak yow ca université bu mag ba di xool donga yi fa nekk ci seen wàllu faj ak seen wàllu wér yaram comme ni nga xamante ne noonu la amee ndigal gannaaw ban sosee université ba léegi lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllum faj ak wàllum xoo seet donga yi rek ci seen loxo lañ ko teg tey jii nag gannaaw ban amalaate bis boo xamante ni bisub seet donga yi la ñenn ci mbokki taalibe yi tamit. ñëw ci barab yi njëkke woon ko ci jumaay Tuubaa ji ànd koog waa Muxaddamaatul Xidma xëy ñoon sunu liggéey ak ñoom yàgg na lool ndax buñ xoolee màggali Tuubaa yi lu ci mel ni infirmier grande mosquée bi bu dul màggal ba ci bis bii mujj di barki dem di bisub bisub xasida bi lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu taxawaay nit ñi ci bërëb yu fasantikoo ci biir Tuubaa sëñ bi ci seen loxo la ko la ko la ko teg ñu koy doxal kon lii mooy daara ji xamante ni mooy Touba assistance médicale di soñwaat mbokki taalibe yi bu baax ci liggéey bi ñu xam ni liggéey bi lii kese la fexe ba gëstu xam-xamu médecine yi ci far ci gox yu fasantikoo waaye lépp ngir bëgg ci liggéeyal sëriñ bi lépp mooy fexe ba luñ ci am du rax mukk sunu taalibe du yàq mukk lu nu xam ci wàllu médecine bi wala wàllum faj mi ñu fexe ba muy niñ ko gisee xam nañ ci mbokki taalibe yi ci ëpp noppi seen médecine noppi seen spécialisation ñii ñoo ngi ci hôpital bu Cheikhoul Khadim mag bi ñii ñoo ngi ndaamaatu ñii ñoo ngi matlal fawsé bi ñii ñoo ngi feneen ak feneen ci biir goxu Touba bi ñeneen ñi nga xamante ne xëy na am na lu leen dese ñoo ngi dakaar ñeneen ñi ñoo ngi tamit Ziguinchor waaye ñoom ñëpp seen mbébét mooy fexe ba lu nu xam ci wàllu médecine bi lu nu xam ci wàllum jàng moomu ni ko sëñ Xaadim waxee rek lu luñ ci gëstu ak lu mu yaatu liggéey sëriñ bi képp leen ci ñor kon kàddu yi ñu doon ñu doon yëkkati ñoo ngi koy yëkkati ci kàddu yu jëwriñ ji nga xamante ni moo jiite liggéey bi di docteur sëñ Abdoulaye Sare jamono ji xam naa dafa yegg si woon ci sëñ kër sëñ Bas la jëmoon ngir da woolu woon waaye ñu xam ni lii te commission enseignement et culture ŋànk ko loolu lépp ci kàddu jëwrin wala kàddu ñi nga xamante ni ñoo jiita liggéey bi kase ci nañu ci nañuy waxee kon ñoo ngi tuubalaat bu baax xam naa foofu na ni wàcce kàddu yi bu ko defee bu noppee fii mën a ziar bërëb yi nga xam ne moo moo moo ci des wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa allah ci leeral yi kon ñun dañuy ñëw rek pour présenter leen euh, daaray kaamil euh, daaray kaamil ñu ngi ko fonde fondé atum 1977 ci xilaafa Cheikh Abdoulaye Mbacke moom moo ko créé woon dëgg yàlla mu nekk barab boo xamante ni barab bu am solo la si yoon wi barab la boo xamante ni wax dëgg yàlla euh, lu bari ngeen gis ci xam-xam ci yoon yi fii lañ ko jëlee ndax Cheikh Abdou euh, gis-gisam moo doon fay sëñ Tuubaa wala njukkeel sëñ Tuubaa ak xam-xam ndax sëñ Tuubaa léppam xam-xam la ci ci la ko teg euh, sëñ Tuubaa nag dafa nekkoon koo xam ko bëggoon téere la ku fonkoon téere historique bi nga xamante ne tax na mu tax barab mu taxawal barab bi sëñ sëñ Tuubaa boo demee njaareem ca kër ya nga fekk ci ay baraag yu bari yoo xam ne ay téere moo fa nekkoon téere yu bari nekkoon fa nag jamono yooyu sëñ bi amoon yéene créé benn bibliothèque foofu ci njaareem yàlla dogal téere ya baraag yi mu nekkoon xaw a am jafe-jafe ndax tàngaayu baraag baraag yi mooy néeg yi yu si bari yàqu yu si bari lakk sëñ Abdou Lahad nag gisoon ne sëñ Tuubaa bëggoon na yéene moo doon taxawal bibliothèque foofa léegi nag mu indi bibliothèque bi nag indi ko fii Daaray Kaamil nga xamante ne nag jublu na si dafa ci diisoo njabootu Seex Xaadim gi ñu fi nekkaloon jamono ku nekk mu laaj la li ci sa xalaat ñun ñëpp ñu rafetlu ko am ci mbégte lool ci taxawaay boobu mu gis na nag daa war a taxawal barab bi ngir ne am ñu ko laaj mu ne dañ dem ba jëmi jamono sëñ bi du fi nekkati wala doomam wala kum yar bu ko defee ñu dellu si am mbindam loolu bokkoon na ci euh, xëdëf bi nga objectif yi nga xamante ne tax na mu créé bibliothèque bi bi mu koy créé nag jékki-jékkiwul rek dajale alal tabax ko dafa boo woole ay boroom xam-xam yu mag yi nga xamante ne seen xam màcc na ci wàllum bibliothèque laaj leen normes yi ak organisation bi ñu jox ko plan bi wut ay architecture yoo xam macha allah ci wàllum tabax ñu jox leen palan bi ñu tabax ko tabax bu rafet rafet bi nga xamante ne comme tabax bu mel ni nga xamante ne macha allah bu aéré la boo xamante ni fu ne la la téere mën a nekk bi nga xamante ne def na loolu pare mu gis na nag am na loo xamante am na ko ci mbindum Sëriñ Tuubaa waaye am na loo xamante ni amu ko fekk loolu mag ñi ñu baree bari ñoom li ñu yoroon ci Sëriñ Tuubaa dañ ko ci xawoon a dañ ko dañ xawoon a xër ba nanguñu koo joxe. ah Cheikh Abdoulaye nag gis ne loolu nag du yomb li ci yombal nag mooy il faut moom mu déplacé wu dem ci mag ñooñu laaj leen li mu yor li ñu yor ñu jox ko ko bu ko defee mu boole ko ci li nga xamante ne moom la bëgg a defar muy bibliothèque bi ah demoon nañ sax ba jëmi jamono am na ci mag ñoo xamante ni bu ñu daan masa génn àdduna sax dañuy jël lañ lañ doon ci Sëñ ci ay téere dar koy ñu leen ko la xam loolu bu yàggoon tey lu baree bari ci mbindum Sëñ Tuubaa dañ ko gis nga xamante ne li mu def mooy li jar a neexale xaalis mu génneex alal jox ko li nga xam dafa jar a dem gane ji moo dem gana ji jox ko nga xamante ne ci loolu la def ba dajale euh, kaamil yu bare kii yu bare bari ci mbindum Sëriñ Tuubaa ci lim bu am solo ci mbindum Sëriñ Tuubaa bi mu paree nag mu nekk ay manuscrits yoo xam loxo lañ ko bindee mbind moomu nekkoon mbind mu xaw a raaf mbind mu xaw a yàgg ca la wooye ay kàngam yoo xamante ni macha allah ci bind ñi bindaat ko mbind mu sell mu rafet moo xamante ni jéggi na doyo moo moo nekk fii bi paree nag. mu bëgg mu tasaaroo ndax lu ñu bëgg mu bari duñ ko mën a bind mi nu mu nu mu yàgg bëgg mu tasaaroo ci la woo ay boroomi xam-xam laaj leen xalaat ca la créé benn imprimerie ut ay machines yu mag a mag indi ko ci barab bi mboolem li ñu bindoon ci xaside yooyu yëpp ñu imprimerie ko tiire ko indi ko ci saal nga ne bi mu paree ko def ay saal ah, ya ko def ba ñetti saal saal 1 bi dafa nekk lépp alxuraan la joo xam ne sët suñu tubaab yi ñoo ko bind mbooleem sët yi ñu si baree baree bare ak seex si seen i doom ñu baree bari ay kaamil bind loxo mi ngi si saal boobu ak ay manuscrits yoo xamante ni ay lal yoo xamante ni ay téere yoo xamante ni Sëriñ Tuubaa ko moomoon ay lal ay gaal mi ngi foofu nga xam ne chambre boo xam ne ko créé woon ci biir salle boobu di salle 1 bu nga dem ci salle 2 bi muy xam ne dafa nekk lépp ay xasaayid la ak ay téere xam-xam yoo xamante ni Sëriñ def nag ci wàllu diine lu jëm ci tawhid xam la kan mooy suñu boroom ak fiqh droit musulman ak soufisme ak grammaire xeet téere yooyu yëpp mu ngi ci salle boobu di salle xasida ak ay diiwaan yoo xamante ni diiwaanu xasida la ay diiwaanu am daax tagg yoo xam ne da ko tagg yonu salaa sallam ay salaatu ala nabi ay fulkul masoon sikrullah quraaniya xeeti diiwaan yëpp ñu ngi ci saal boobu di saal 2 di saal xasida euh, ba mu jógee ci loolu nag gis ne gisoon ne nag suñ Abdoulaye gisoon ne suñ tubaab ku fonkoon boroom xam-xam yi ci biti la daan daan liir seen téer yu bare bare bare bare bare lu jëm ci fàllum fànnu maanaam alquran tafsirul quran lu jëm ci ulumul quran mooy science coran lu jëm ci wàllum fiq téere yooyu suñ tubaab di fonkoon lool sëñ Abdou Lahad yónni benn commission bu mag ca euh, bitim réew jiite ca sëñu Modou Mamoun di ko xamante ni macha allah na ko yàlla yërëm xaaru taxawal liggéey bu am solo bitim réew googu indi fa téere yu baree baree bari ci salle boobu nga xamante lépp lu jëm ci wàllum science médecine agriculture xeetu xam-xam yooyu yëpp ma nga fa comme bu ñu waxee daara kaamil su bari seen xel fekk téere xam yi ñu jàng université yëpp mi ngi fi ndax sëñ Abdou Lahad gisam gis moroon moroon li mu gisoon mooy dafa bëggoon lëkkale université bi Cheikh Sëñ Muntaxa eggale ak ak ak Daaray Kaamil nga xamante ni mboolem fànn université yi ñuy jàng ci université mi ngi ci barab bi kon saal boobu lépp lu jëm ci fànn science lépp lu jëm ci histoire lépp lu jëm ci wàllum diine boo fa duggee da ko fay fekk ci saal boobu di saal euh, ci culture générale waaye nag lam ci jublu woon moo doon nit ñi jariñu ci ndax gis-gisam moo doon Sëñ Tuubaa moo waxoon bayit bii ne kanzul kitaab wala hadis wala adab laa jamu fidda wala jamu zahab sama trésor mooy alquran mooy hadis mooy xam ay teggin loolu moo nekkoon trésor am sëñ Abdoulaye nag jëmmal loolu ci barab bi mu nekk barab boo xamante ni barabu ñëpp la rawatina ndaw ñi ndaxte sëñ Moustapha gi tal bi nga xamante ne mooy kilifa gi bi mu ñëwee gis na ne bibliothèque bi dafa fermé wu woon téere yu bari nit ñi xamuñ ko ca la créé salle bi nga xamante ne ubbi ko ba nga xamante ne fépp fu waay jugee danañ ci man a jëriñu du question nag wàllum arab dong moo fi nekk boo duggee ci wàllum langue français anglais espagnol sàppoone xeetu làng yëpp ñu ngi fi ci téere yoo xam day jàngale sëñ bi ak yoonu murit kon mu nekk salle boo xamante li ngeen fiy dégg yëpp li ñu fi gis yëpp dañ ko numériser dañ ko loo xam dañ ko jël teg ko noonu lépp dañ ko informatiser am na ci benn plateforme mag boo xamante ni ñu ngi koy waaj a ubbi wala yàgg incha allah fi ngeen gis nii médiathèque la médiathèque bi ñu ko waxee mooy lépp lu jëm ci mbindum sëñ Tuubaa ci wàllum son ci wàllum vidéo ci wàllum image dañ koy dañ koy dañ koy def te ñu ngi si incha allah balaa yàgg te li nga soxla ci waxtaan yi nga xamante ne jëm na ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi ak ñi nga xamante ne ay borom xam-xam yu mag lañ ci yoon wi def ay waxtaan boo dikkee fi da nga ko fekk kon nag mu nekk barab boo xam ne seen kër la seen wàccuwaay la ndax fànn bi ngeen nekk mooy fànn médecine téere yu baree bare bare yu jàngale médecine mi ngi fii téere yu baree baree bare yoo xamante ni di jàngale médecine bu am solo boo xam ne ñu bare bare fii dañu fiy ñëw di ko jariñu mi ngi ci ci barab bi daale kaamil kon ñu ngi am mbégte yi di tënk foofu ndax dafa xaw a xat di ñaan yàlla suñu borom yokk seen taxawaay ndax yéen moom yéenay lépp li ma koy waxee sama benn sama benn nijaay ci yenn la bokk muy bu Boubacar Diatara dama koy wax ne ko yéen moom presque yéenay malaaka yi àdduna rek parce que lu yàlla nar yóbbu rek yéen a koy yéen koy taxaw ba ba du mën a dem ci seen xam-xam ci seen ci seen euh, xereñte ba lépp li ngeen bëgg a am yàlla defal leen ko ak seen xadim euh, daayira bi ci lañ bokk ñun ñëpp parce que sama rakk a fii ci biir te yëgu moo ne ngeen ñëw tey ndax lii bu amee du hasard ñëw dajee fekk kilifa gu mag yi di borom xam-xam suñu Euh, te tey léegi laa yëg rek ne da ngeen ñëw li lépp moon naa bañ am direct bi ñu fi ñu en ah, direct lañ ko def li yëpp moon naa bañ am kon li ngeen liggéey Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa gis na ko te loolu yàgg na ci Sëriñ Saliou ba ndax yàgg naa gis ngeen daan dem xel xelkom di jugee fii dem xelkom di yóbbu di faj xale ya yàgg naa gis ngeen jëlee xale yi leen yóbbu dakaar leen faj mu nekk loo xamante ni macha allah euh, dara gënu koo kawe di ñaan yàlla suñu boroom yokk seen xam-xam yokk seen kàttan ba lépp lu ngeen bëgg jublu ci liggéeyal sëñ tubaa ak li ngeen bëgg ci ay diplôme ak li ngeen bëgg ci liggéey bi suñ borom defal leen ko ndax fii kat sëñ Abdoulaye dafa wax ne dencub sëñ Tuubaa moo fi nekk dencub sëñ Tuubaa moo fi nekk mooy sëñ Tuubaa ab fii la nekk ndax bu ko waxee mooy li mu gënoon a fonk muy xam-xam ngi fii ndax moo ne woon tamit dencub mag moom yàgg-yàgg dana ko jël si wala nga fekk ko fa kon ku fay ñëw da nga ko fekk wala wala mu fekk la fa kon sant leen yàlla bu baax bi ngeen fi accès te xam ne seen kër la lu ngeen fi bëgg rek ubbi la ñu bunt yëpp ndax it fii lu ne lañ fiy def dañu fiy jàngale di fi def ay formation ci lu baree baree bari euh, te li leen ci boole nag di xam ne si ngeen bokk lu ngeen ci am xalaat di ngeen ci ngeen bokk incha allah premier août bii di ñëw rek danañu def ay formation yoo xamante ni ci ndaw ñi Tuubaa yi jàppal leen ci wàllum formation euh, ci ndaw ñi ñi ngi xam ngi jàng dimbali leen ci njàng mi daaw defoon nañ ko rek ñu ngi koy waajaat kon nag yéen yéen yi nga xamante ne daayira bi ñu ngeen ñaan lépp lu ngeen mën a jàppale ndaw yi tubaa ci wàllum maanaam euh, wér-gu-yaram nan lañ leen ci forme même ñu jàng ak ñu jàngut ñu ngi ci ndax formation bi du question ñu jàng kese même ñu jàng ak ñu jàngut ñu ngi fi incha allah dañ ko tàmbali premier août jàngal xale yi di jëm ci wàllum transformation entrepreneuriat dañ leen ko defal fii xeetu xam-xam yi yëpp dañ leen ko defal ndax bibliothèque du question wàllum ñëw la liir xale bi dafay war a jariñ ci domaine yu baree baree bare format yëpp da cee bokk ay formation ay jongante xam-xam ay yëpp dañ ko fiy def kon daal seen kër la lu ngeen fi bëgg rek incha allah ak lu ngeen ko bëggee ñun taxaw sant leen gërëm di ñaan yàlla suñu borom leen seen taxawaay yokk seen man-man yokk seen wéer ba li ngeen bëgg ci ay diplôme yu baree bari suñu borom defal leen ko waaw ñun nag si daara bi ñu ngi fi taxamuñ woon ngi ci biir sax xamuñ woon ci ñu bokk ñu xam lépp la mi ngi ci yéen yàlla na wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ñaan bu ko defee ñu yeewee ko incha allah jàll si biir واعفنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الله خير من شفى ومن هدى وك الشفاء من جاء الشفاء من كل داء مقدر بسم الله الرحمن الرحيم قل الله وعد الله وصلى الله عليه وسلم قل اعوذ بالله خلق من شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالناس ملك الناس داعي الناس من شر الناس alladi waswisu fi duur naas min aljinnati wa naas bismillahi rahmaani rahim yaa man yarumu dafa kulli daa fala tufaarix matlaba shifa wa limalim fi masala sa wa aqali santan sifa wa mm-hmm. fala bismillah wa sallallahu alayhi wa sallam muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kamilan kulla ma namahu wa naxsu amna kulla ma naxtaaru yàlla eh. alhamdulillah